ni Sénégal léegi xale yu góor yi léegi ñu ci bëri bëri bëri dañoo dugg ci li nga tudd sànq kàddu gi bëgguma cee jaar muy wàllum góor jigéen boobu dafa commencé di bëri même li nga wax sànq xale jigéen tamit xam nga ñu leen di jël parce que ñu ci bëri milliards yooyu noonu ñuy tudd am na ci ñoo xamante ne milliards yooyu la ñuy jël di ko naxee xale jigéen yi bëri na ci ñoo xamante ne si nii ay jigéen lañ nekk ay nekk ay xale mais euh, comme li mu wax rek iPhone yi léegi tas na dëkk bi ah ku ci yoru téléphone bu seer foog ne yow yoroo dara xalifa loolu tamit bëgg naa nga ñax ci xale yi ndaw yi parce tamit dama jàpp ni man li waykat ba wax rek nee na alal bu mu la jaral sa ngor mhm. yaa ngi dégg ba pare tamit euh, wax nañ ko nee nañ euh, nu mu tuddati euh, doole moo mun dëgg waaye tôt tard dëgg mooy mujj waaw léegi nag jeunes yi lan nga leen di yedd parce que tamit mhm. Sénégal fi mu toll nii jaxasoo na man xamatuma ban dëkk laa nekk damay toog sax mu may travailler sama bopp bi waaw <laughs> muy tuxu daal <laughs> parce que noonu la demee mhm. ñun loolu lañ yàgg a wax waaw moo tax ñu ne la noonu naafeq yi képp kuy dëggu di dund dëgg di dégg dëgg te mu dëgg te yàlla rek a tax xam na ne ñun saawaay dëgg na ñuy wax te yàlla rek a tax. Mhm. parce que loolu baaxul suñu réew. maanaam phénomène nu en général prostitution. Mhm. waaw muy prostitution déguisée prostitution luxe. prostitution masquée. yooyu noonu yëpp mooy phénomène bi. ak deux puces deux puces moom. duñ ko musa nangu Sénégal. waaw dem leen ngeen lijjanti ki gën a siiw Sénégal ki nga xam ni Sénégal yëpp nee nañ mooy star bi moo fi ëpp buzz. Mhm. ngeen fay ko xaalis bu dul jeex wax mu solal leen drapeau. wala mu tëggal leen seen jël ay fecckatam ñuy fóonante. Mhm. def leen seen i pexe fii ba téeméeri at du musa dal du musa nangu fii. xalifa ah, kon loolu yëpp jotoon naa am xew fii non xam nga si xam nga ñun ñun duñ ay ngaaxa. mais ñun iso ñun ñun fan la ñu nekkoon ñun bi loolu man kay yooyu yooyu ñun fan la ñu loolu alhamdulilah macha allah. Mhm. biñ si tolloo. Sénégalais yi nga xam ni ànd ak seen xel ànd ak seen sago ba pare intelligent. xam dëgg boobu ñoom taxaw nañu xeex pour intérêt Sénégal. Mhm. waaw. bu jeexee ndax jeex na te yaakaar naa si loolu noonu am nañ si ndam wala am nañ si maanaam ndam li maanaam mi ngi tàmbalee nànk par nànk parce que gis nañ ay élèves yoo xamante yi nii mhm. dañ leen bëggoon jàngal ay problème ay programme depuis ñu génn bañ ko yaa ma gën a xam mhm. yëngal mhm. du dëgg gis nañ fi tamit saay-saay si nekk si kaw ñoom seen bopp ñu génnee Sénégal si pays les plus sûrs xam mhm. kon sant yàlla yal na yàlla xeeb dool yi le combat continue mhm. sama vidéo saafara jamono tey dama jël seen drapeau boobu taal ko te naa continuer di ko taal te saa waa man li may wax ragalu ma ko nëbbu ma ko mhm. waxoon naa ko saawaay si net bi ñëw naa leen deux puces boo leen jàpp def leen ni nga xamante ni diine gi loolu la santaane kaña leen ko ba mu dee te bu leen Sénégal dara <laughs> mbooloo bu defee loolu deux doo ma ne mbooloo bi yëpp nañu jël yóbbu leen si kaso bi booy lu am Sénégal jot léegi am Sénégal booy askan bi boppam mhm. askan bi si boppam jël ay responsabilité mais est-ce que noonu la ñuy jëlee ah. responsabilité tamit Khalifa quand quand quand noonu la ñuy jël parce que lu tax Mhm. parce que deux plus mais ku nekk solution bi dina dina. ku nekk du fajal boppam li li xalifa wax dama ciy ànd ak moom di par parce que tamit dafa jot. à ce dama ciy xaw a ànd moom li tax ma. xaw a voilà non dama ciy boo leen yóbboo dañ indiwaat leen ba mm-hmm. waaye nag euh, dafa jot ñun ñu jug xam nga jël suñu responsabilité génn parce que tey jii nii buñ gisee loo xam ne neexuñu yow soo jugee xalifa jug ma jug keneen dafay jug mais tey problème bu amee kii toog kee toog man it damay toog waaye yow kii bu jugee kii jóg man ma jug suñu ya suñu àndoo boole ah wane suñu doole foofu day daal xam nga ku mel ni xalifa day baax ci réew mi ndax man jàmbaaru jooni jooni bi laa ko tuddee lom fool bi kenn du yow si dara sax <laughs> ñun gis suñu bopp xam lu ma wax nii mhm. te tamit ay jaam yu xeebu nañ xëy na sax tekki wuñu dara mais mhm. mooy lu ma la wax ay soldaaru bañas nañ mhm. suñu sang bâche maam rensa li nga nàmp loolu ngay gàll est-ce que ay dégg ñun dëgg ci yàlla rek a tax donte duñ dara mais en tant que artiste rappeur suñu kàddu fu mu mën a àgg nañ fa wax dëgg bi mu àgg fa. Uh-huh. mais mooy li ma la mooy li nga wax noonu loolu dama si ànd. Uh-huh. parce que mbooloo mooy doole. Uh-huh. tey si tey justice. ak pouvoir lépp ñun la askan wi. ñun la ñun ñoo dajale suñu xaalis. vingt cinq milliards yooyu ñun ñoo ko dajale suñu xaalis la. waaw mooy contribuable sénégalais bi. mais maanaam sénégalais ñoo war a mën a yeewu te yàlla rek a tax. xam jiital bi ñu lay jiital nii sax naan non jàmbaar baa ngi nii xam nga. Hmm. mooy làmmiñu askan wi acca bismillah loolu sax du yoon. Hmm, loolu booy du yoon ni ñu jiitalee activistes yi nii. ñëpp ci waroon noon la demee ñëpp war a mën a àndandoo bu dee activisme la ñëpp nekkandoo ay activistes. ñëpp ñëpp teg ay acte pour ñu mën a. Hmm. merci ñaara bu kenn benn Guy Marius wala Karim Xurum Xax ne acca suñu jàmbaar yaa ngi nii acca bismillah dem leen. mais bàyyi saa waay mais benn kese day neex a éliminé. ñaar ñaar mu génn sax doole noonu la demee. te ñett lu bëre. li noonu la ñun li ñuy wax. Mhm. dama am dañ koy wax pour gars yi di yeewu. Mhm. donte ni maanaam. wax nañ benn yoon benn nit yeewu benn sénégalais yeewu sax sant yàlla ndam la. Mhm. te am nañ yaakaar ne nañ dem ba million de sénégalais yëpp nañ yeewoon door. xam nga mhm. te bu ñu yeewoon allah. Mhm. daa suñu Sénégal. loolu la demee quoi kii noonu <laughs> Khalifa Harap <laughs> nekk suñu premier invité ma ci ànd ak nag wax naa ko sànq ci début njëlbeenu émission bi mooy ki nga xam ne mooy. si sa Thiaba borom Mbourgéej ak mm-hmm. borom fële nga xam ni mooy Tëngéej de toute façon on continue ci suñu deuxième sujet euh, euh, dugg rek brièvement ci li nga xam ne tamit xew na fi actualité boo xam ni mm-hmm. bërki démb la mooy le cas euh, Sen TV ak li nga xam ni moom mooy problème mu impôt yi ba keroog ñuy def li nga xam ne mooy inventaire wàccee fa ay gendarme yu takku mu créer benn benn benn benn benn buzz wala créer benn jaaxle di passé mm-hmm. loolu tamit mu nekk beneen beneen mbir boo xam ni fii la xewee ci biir réew mi mm-hmm. Khalifa quest que ça fait waaw loolu mooy injustice bi am si réew mi rek à la base yëpp yëpp lépp lépp moom la muy maanaam injustice bi rek lépp saa moo koy jur problème yi ngeen di dégg ak yi ñuy ñëw dégg fii ak si kanam. Mm. fii ak deux fii ak deux mille vingt trois deux mille vingt quatre incha allah même problème yëpp base bi lekk lay nekk mooy injustice bi injustice bi fan la jóge si Sall bi salmaki Macky bi yàgg nañ leen wax Sall Macky dégage lépp ñooma du ñu dara ay doomu aadama kase nañ xoola laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek a fi ne bàyyi ñun gis nañ fi nguuru firawna wala boog gis nañ fi nguuru firaawoon ak waa yaa ngi dégg mhm. gis nañ fi gaan ay yaaya jaame yii nii ay aliyari sharon xawma ñoo leen gënoon dee téeméeri jun jun yoon te teewul ni saa waay xoola insha allah dëgg mooy mujj mhm. yaa ngi mhm. waaw ñoo moomee vent quoi nañ def lu leen neex yaa ngi dégg voilà bu leen neexee nañ gën a gàtt xel nañ gën a def je m'en foutisme est-ce nañu gën a xoola tëral askan wi rendi ko nañ jaay doole askan wi ñun saa ragaluñ leen faaleluñ leen nawloowuñu leen est-ce que ay dégg. Mm-hmm. waaw parce que xoola jubuñu. selluñu duñu nit yu baax duñu ay royukaay xam nga te tamit maanaam xoola boo xool ñooy mbalitu askanu senegal parce que Sénégal booy dafa jur ay doom yu si mel ni ay Cheikh Alaaji Abdoulaye Si Dabaax ay Bagnas Alaaji Malick Cheikh Amadou Bamba Alaaji Fallou mm-hmm. Sénégal ñooñu la jur booy si ay nit yu baax ay nit yu sell ba nu muy lawee di wàcc ba si ay sang bi Bacha maam Rinsa Diop bëgg bàyyi. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. waaw Sénégal dafa jur ay doom maanaam yu sell yu baax yu yiw yu honnête. Mhm. ñoo ñooy suñuy royukaay ñooy maanaam ndamu Sénégal mais pas mbalit yi nga xam ne ñooy mbalit mooy mbalit bu bees bi rek. mbalitu Sénégal bu xew bi. mbalitu Sénégal bu xew bi ñoom ñoo fiy nekk di def lu leen neex. man la sumwaay yi lan mooy yu gaan man la sumwaay ñu ñëw xëy naan dañuy dem si benn télé dañ koy tëj. te télé boobu noonu gaar xëy na saawaay ji amaana kaay ma wax la saawaay ñu xam nañ Sénégal te xam nañ ñu bëri saawaay fii si biir taan bi maîtriser nañ ni muy doxee waaw ñoo xam ni dañuy tooñ tooñ maanaam doomu Sénégal wala tooñ wareef nu mu munti demee wala sax bañ a fay ay impôt wax yooyu noonu yëpp xam nga say baay dañuy am ay problème si dossier bi yéen ay ay ngeen. Mm-hmm. déggoo leen fi ay groupe de presse yoo xamante ni saa lu yàggul dara ñu ngi leen di yóbbu yoon parce que tooñ nañ doomu Sénégal wala dara. Uh-huh. tooñ nañ leen fan la mujj mujjul fenn parce que ñoom xëy na ñoom nañ àndal ñoom nekk luñ fi askan wi dañuy sax mubboo askan wi naan ñun ñooy liiwu askan wi di sóob te duñu dara waaw ñoom si mbalit bi lañ booxu <laughs> ñoom ñooy ñëw gaamal la sum waaye xam nga mubboo askan wi ba pare di xeex askan wi di àndandoo di noot askan wi uh-huh. te ñooñu xoola dañuy tooñ ay doomu réew mi doomu réew moomu yaakaar si yoon yóbbu leen yoon te du mujj fenn. ñu mhm. jël ay ay ay de presse yoo xam ne askan wi nañ fi nekkal bëgg leen jaay doole bëgg leen bundu xat loolu mooy ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. Mhm. bërki démb moo njaay xaw ma démb xaw ma bërki démb maa ngi seedaan Dof Ndeye waaye mu wax loo xamante nii saa waay xoola oh Sénégal boo da gën a xëy ñu lay gën di saaga saa yoo xëyee dugg si internet bi yow doomu Sénégal bi mhm. ñoom ñu ngi lay saaga booy ay saaga yu amul fenn waaw te tey si tey gaan askan bi du ñu wax de. mais ñun ay waxkat nañ ay rappeur nañ dañ xoola dañ koy wax suñu baat sa kaw doo leen dara. te toskaay ñaan na leen xalifa xalifa dooguma la dooguma la dooguma ñoo te ñooñu ñooñu ngeen di xeexal souvent da ngeen di jug di xeexal askan bi mais askan bi am na ci ñenn ñoo xam ñooy wëlbatiku di leen saagawaat saaga yooyu yéen nan ngeen koy dundee parce que da ngeen di jug pour xeex ak ñoom yor làmmiñu askan wi di leen jëlal part mais ñoom ñooy obligé mujj ñenn ñi dëppaat seen kaw di leen saaga waaw ñooñ si mbalit bi lañ bokk rek parce que mbalit bi dafa yaatu <laughs> waaw mais mbalit bi lu mu yaatu yaatu yaatu yaatu benn bi kasa waaw mu exemple Mbëbës. waaw lawul di nekk ay Kër Masar ay Mbaaw ay feneen Mbëbës kese la quoi. waaw ma dem ma la incha allah yàgg yàgg yàgg yàgg saawaay. dëgg mooy mujj. est ce dëgg. nañ toog di def leen neex di tëb ak dal. te xam nga lii ñun bëgguñu ko si Sénégal. parce que nguur day jeex. day jeex yàgg yàgg dina jeex. bu demee ba jeex yi mooy indiwaat ay règlement de compte. SAD yi kese mooy indiwaat euh, après Sénégal ñëwaat si ay règlement compte. merci beaucoup après histoire di répété wu affaire yi bañ a changé. te ñun bëgguñu loolu. ñun dañ bëgg Sénégal ñu trouver ay solution xam nga. ñu liggéey suñu Sénégal Sénégal normal. xam nga waaw ñoom tekkiwuñu dara du ñu dara. wër di dundu gaama la damay xëy saa xoola faat leen ñoom ñëpp. <laughs> ëpp naa def waaw que <laughs> <laughs> parce que nit nitee mhm. boo déggee ñu ne nit xel mooy nit mhm. saawaay ji mhm. xel mooy nit booy saawaay man Saal Maki bi man dëgg laay dund te yàlla rek a tax Saal Maki bi ba mu daj. Mhm. man kenn kese saa waay xoola laa si respecté te kenn laa jox cër mooy xam a kan Cheikh Tidiane Ba Messi. te dafa am tax ma jox ko cër parce que moom bagage yi mi ngay teg si yoon. Mhm. doomu Medina la Medina la juddoo. a mhm. ce que dégg. te tey si tey maa mi ngi xeexal askanu Medina di jàppale jeunesse su Medina te kooku saa waay xoola. 1992 la commencé nekk ci impôt nekk inspecteur des impôts. xëy na moom bi muy am xaalis sax ñoom amuñu xaalis. mais Khalifa est nekkul lim dëkk Medina moo tax nga farak moom wala da nga farak moom tax day dox ci dëgg fa nekk ñu fa nekk di doxal waaw am na ñu fa nekk di doxal dëgg mais yow moo tax nga taamu ci ki nga xamante ni moo moo dëkk Medina wala da ngeen bokk koñ wala nu mu fa demee noonu. mooy li ma la wax rek. ma la moom la askanu Medina gis parce que Medina mooy lu ma la wax sànq si. waaw waaw Medina moom duñu ay naafeq daal képp koo munti doon faale yu la. waaw loolu moom lijjantiwul nangul nañ leen loolu. mais mais mais Bamba am na lu mu def Medina de. bay bay non non Bamba Fall deful dara Medina. Ah, Bamba ah. Fall askanu Medina ñoo ne Bamba Fall dégage. te loolu yàgg ko waxee. ah bon waaw. moom man bugguma sax di wax ay waxam. Mm. ndax Samba àllaare al. àll bi moo koy gërëm. Samba àll. mais àll bee lay gërëm quoi. mais avant ngeen koy. mais moom mais moom mais mais mais Thiaba. bu fekkee loolu c'est ñi dëkk Medina ñoo fal Bamba Fall. waaw ñoo ko fal ba pare avant ngeen koy dégager est-ce que nekkul tamit am na lu mu jotoon ma fàttali leen Bamba Fall. Mhm. bi muy njëkk nekk maire procuration la woon. Bamba Fall équivalent wu cinquième adjoint maire bu Medina la woon. quatrième bi deem remplacé ko. nekk quatrième troisième bi dee mu remplacé ko deuxième bi tiit démissionné mu remplacé waat ko. mais loolu léegi foofu léegi laa lay wax ni saa yi. junj doy na boroom xel quoi. ku dee nga remplacé ko. saa waa ji maam moom maanaam dafa maanaam li tubaab naan il a marché sur des. Euh, kon daal yow affaire bi yow fan nga ko bëgg a yóbbu yow yow yow yow dogguma la dogguma foofu dogguma la foofu mais yow bi muy nekkaan maire si coalition taxaw Dakar te coalition taxaw de Khalifa Sall la woon si la nekkaatee maire est-ce que yaa dégg kooku nawloo ko tiitaroo wuñ ko kooku noonu tey si tey si mbalit yooyu noonu ñun si ñooñ ña ngi koy considéré te mooy lu ma la wax lu Moussa am maintenant mu def ko loo xamante nii gaamal la sumu waaye histoire Sénégal l'histoire dra maire bu ñu jàpp ak plus de trente cinq chefs d'inculpation trente cinq mafia bu mujj bii nag gars marché pavé yi ay cent et quelques cent ay millions xam nga tey see mooy lu ma la wax booy Bamba Fall kuy toj jàkk booy toj jàkk toj jàkk doy na waar di ko tabax ay magasin ah waaw toj toilette publique maintenant yëpp tabaxoo ay ay magasin te magasin bu ñu loué juuti yi saa waay xoola du dugg si keesu mairie bi. ah mais il est encore candidat non dama ni la oh warul sax nekk candidat. ah mais mais il a été parlé parlé Médina tamit ak quoi quoi. quoi loo ko loo loo mën a wax tamit Khalifa. moom yaa yaa yaa de moom fan yee paase fan yee paase. am dëkk Médina waaw waaw fan yee paase daa bëggoon daw laaxu di dugg si ay coalition coalition Yewwi Askan moom moo fa dem moo fa génnee boppam. la moo tax mu génnee fa boppam parce que jeune xalifis yi nga xam ni ñoo ko faloon 2014 ñoom ñoo def seen communiqué ne Bamba Fall bi ñu mës a nangu muy nekk tête de liste Yewwi Askan Wi fii si biir Médina est-ce que dégg te xalifis yooyu noonu booy saa waay pour intérêt général lu Médina Cheikh Ba nañ àndal est-ce que dégg ñun Médina képp ku bëgg Médina te yàlla rek a tax mu dëggu si yow. Cheikh Ba mooy sa candidat pour ñu liggéey Médina. Cheikh Ba nag saa waay ji ñun li ñu injustice ñu ko nangul kenn bu ñu demee ba dénk ko maintenant toq injustice su ko defaay ñu génn dénoncé ko. kon daal dogguma la mais mais yow ak jeune Medina yi kon da taxaw tembe ni pour jëlee fa ka fa nekk indi fa ki ngay wax ni mais moom bu ñëwee def même chose nag nan ngeen koy def. kon comme yéen ku ngeen paree rek da ngeen koy yóbbu ci poubelle bi. <laughs> toq injustice yi nga ko may. Mhm. liggéey Medina la Medina normal. incha ñëw daal def jaarale ko ci yoon bi. dëgg jubal lekk lay jubal lekk. Cheikh Ba du sa morom Cheikh Ba faalewu la nawloowu la du la sax tontu. Mhm. est-ce dégg. waaw di génn moom moom moom moom ma maam moom. Mhm. problème maanaam. Ah, mhm. comportement la am problème personnalité amul personnalité amul maanaa. moo tax xoola ñooñu di nga tontu medd bi moo lay tontu. est-ce dégg. waaw di génn <laughs> maanaam moom lu mu wax xase. di xase naa ne ñëw ma fëte leen il ne peut même pas s'exprimer en français. moom tamit woo leen ko ay débat d'idée nii ay débat yi saay du mus a ñëw wala bu ñëwee ay waxu dof lay wax est ay dégg waxu waye di la maintenant moom mérité wul saawaay ni taxaw naa nañ koy jiitee mhm. loolu doom maintenant yëpp yeewu nañ si te dañ ko fay jëlee incha allah yaa ngi dégg mhm. waaw xalifa bu ñu xalifa tey di porter benn candidature ah xalifa te nee nga yow. nga ni non attends xalifa da nga ne askan wi nga fi nekkal. baatu askan wi ngay yëkkati. Mhm. mais ñeneen am nañu droit far feneen. yow askan wi ñor la. ku nekk ak fa Sénégal askanu ba tey bu ñu nee askanu Sénégal askanu Medina. askanu Medina si askanu Sénégal Sénégal la bokk. Mhm. alors dëgg la mais dama ni Medina. waaw non faut pas maanaam confondre pomme de terre et Angleterre. d'accord mhm. commune la. ok yaa ngi dégg te maintenant nekk na commune boo xam ni maanaam tey si tey yàlla def na presque ñëpp xamante nañ. Hmm. wala même bu ñëpp xamantewul sax nit yi maanaam xamante nañ yow su ma la xamee. Hmm. te xaw ma kii. yàlla def na maa yoo xamante nañ mooy la est maanaam si gàttal daal. Hmm, ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Bamba Fall. si mouvement bi mu def nii barki moo Ndiaye bi muy def lancement mouvement bi. baa ñëpp ñu fa ñëwoon saa waay xoola kenn dëkku fa Medina si <laughs> ay dégg. Mhm. day dem di loué ay ñagañaay si si si yeneen i koñ. mais ñooñu nan a xàmmee mais ah, di jël. Eh. da leen di jël fay leen xaalis pour ñu ñëw. nekk ay artistes ñii di tëgg asiko wala dara. ba ñun ñoo ñu koy waxaat ñun doomu Medina yi. Mm. ñu nàndal action ah yéen yéen a koy waxante seen mm. mais gars yi ñoo koy nàndal li ñu ko wax te bu fekkee moom. daa yaakaar ni ay transfert électeurs yooyu noonu mu def si liste électorale yi mm-hmm. transfert électeur ngay jëli ay nit gël tapé ak feneen ak feneen di dem ba ay wakaam vidéo yëpp ngi si ngi si internet bi internet du fen hmm. waaw jëlee nañ fi ay femme wakaam ñu ñëw toog di wax naan ñun wakaam ñun parcelle yooyu leen ngay dégg. saa waay doy na waar doy na waar te xam ne ñun askanu Medina suñu yaay boo yaay nii sonn. macha allah Medina yaay nii sonn xanaa sax Cheikh ba moo leen jàppale si seen affaire kalbaas yooyu noonu xaw ma. ba defal leen kiiw cent ba faral ñu ko mer muy jàppale éducation bi. Mm-hmm. jàppale booy jàng di jàppale même booy nekk si jël bi. Cheikh ba bu ñëwee toog nekk maire moom ngeen di jàppale yow ci ñi jàppale nga bokk moom ci lay bokk. Saba askanu Medina mooy lu ma la wax ñun. volonté populaire nañu àndal. ok ah, mais mais mais Khalifa populaire bu Medina mooy Ba nekk maire de la Medina. pour liggéey Medina. yow daal loolu nga bëgg maanaam ma xamal leen projet maanaam yi nga xamante ne nii xamal nañu ko. Mhm. en tant que maanaam porteur de voix. projet yi mu am pour Medina. ma xamal ñu ko. ñun projet yooyu noonu incha allah bu faloo. ñu ngi koy xaar pour teg bët projet yooyu noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. projet yooyu bu ko daful dinañ génn dénoncé. Mm-hmm. te incha allah moom saa waay gëm nañ ni te am nañ yaakaar ni na ko def te projet yooyu lu ma si gën a neex man lu tax may gën a mën a am maanaam conviction ak gën gëm mu ñëw porté combat bi. mooy projet yooyu musuma ko gis si histoire u Sénégal booy. Mm. booy mu am Medina booy sama xol lay sedd. kon daal Messi daf la révélé xëy na loolu xoola. Eh, mais mais mais Izo. moom est-ce que amul luñ ko dégg. ci <laughs> temps bi bëriwul mais nag man man laataa ñuy ñuy man personnellement man. intérêt général man ñi ma xam xam nañ ma quoi. Mm. waaw mais ah mais mais mais ni muy waxee nii est-ce que man jàppoo ni am na luñ ko dig daal. ah mais ah pour su ah. faloo daal. non non parce que xamul tax. non non demeewul noonu de. non mais mooy lu ma la wax ma ne la biir Medina loo xam ni saa waay. Mhm. baax na Cheikh Ba Fall incha allah Sénégal. yow daal foofu yóbbuwu la. parce que tey mooy li ma wax. caba boo xam ne musul am si histoire bu benn commune fii si biir Sénégal. Mhm. mu ñëkk am maintenant sénégalais yëpp teg si bët. Mhm. doy sama ndam la. sa ndam la suñu ndam la mhm. ndamu maanaam Medina bi yëpp la. waaw ñun dañu ay naafeex quoi. xam nga def teranga sax ñu wax ko ku def teranga. waaw si ay ay ay affaire de parce que tamit non xam nga lu tax non pas yow pas pour yow mais da nga ni dafa fekk ay maire ay maire mu jox leen xaalis non non non xam nga tey bu ñëwee dimbali waaw waaw moom laa lay wax ma ni la euh, xam nga yow iso doguma la mais yow loolu yaa ko wax xam nga tey kuy jël kuñ falagul nga